asalaamaaleykum wa rahmatullah man ma ñëw tuuti rek ci benn vidéo bu gàtt rek bu ma bëgg a def boo xamante ne lii il faut ñu wax ci loo ne duma wax wax wax wax il faut nga wax parce que ñépp am nañ ci benn part de responsabilité Moustapha Sy Moustapha Sy Moustapha Sy Moustapha yaa ngi xalaat. bis bi malaaka te di ñëw di jël ci sa ruux di la tegal sa film bi Moustapha Sy est-ce yaa ngi xalaat keroog bañ lay teg ci jaat yàlla na yéex nag di la seedeel di la yóbbu Moustapha Sy ndax yaa ngi xalaat Munkar ak na kiir bu ñu ñëwee ci sa bàmmeel nga xamante ne yow kenn yaa fay des Moustapha àddina bii nga xamante ne dafa jeex covid-19 bi sonal ñëpp àdduna bi ñëpp ñëpp jaaxle ñëpp delluwaat ci seen boroom ñi doon xaste sax bàyyi nañu xaste ñi doon wax lu ñaaw bàyyi nañu wax lu ñaaw Moustapha Sy lu toll ne guddi guddi nabi nga taxaw woo ay nit amoo loo fay wax newoo woo xaala laahi ne woo xaala rasulullahi ku looy wax xaste koy xas ku bokk ak sa bàyyi bàyyi Moustapha si koo bàyyi Moustapha bàyyi woo ndey bàyyi woo sa baay sëñ Abdou Aziz ci Al nii nga ko defoon Pape Malick mii ngay wax nii tey nii nga ko defoon Moustapha si kenn du la gis ci lu baax nga di ko wax man bu juddoo ba toll ni ma toll nii Moustapha si man mësuma laa dégg nga wax lu baax Moustapha Sy fuñ la fekk yaa ngi yee na Moustapha si xanaa yow diine ji nga jàng jàngalu la ne yee na baaxul xanaa rasul sallallahu alayhi wa sallam waxu la ne nit ki soo dee wax waxal yiw wala nga noppi Moustapha Sy naka nga mënee woo mbooloo ba mu daj ñépp toog ngay wax ay waxi manquant ba pare nag li ma gën a jaaxal mooy ñi la entouré xanaa sax nag li olofi naan bu xar dofee béy muy mbokkam waruta dof Moustapha Sy yow jëlale naa la mais ñi la entouré xanaa duñu ay nit xanaa duñu dégg xanaa duñu xalaat ñu lay tàccu ngay wax waxi dof Moustapha demal nga faju man dama la conseiller rek demal nga faju moo gën nga nekk ci biir nit ñi ba lii ëpp la doole ndax man su ma lay xool sax ba mu yàgg damay tiit dama naan kii kan la Moustapha man dama la yërëm yedd nit ki yërëm ko moo ko gën man dama lay jox un conseil mooy nga dem faju ji balaa muy trop tard Moustapha àddina dafa jeex ba pare mustafa àddina nit ki dañ koo war a rafetal Moustapha sa noon bi nga gën a bañ ci àdduna sax waroo taxaw publiquement di ko yàq lu bon gën koo xamante ne sa bàyyi la man de ñi la topp man waxuma la yow de ñi la topp laa yërëm ñi la topp ndax ñi ngeeg seeni xel ñi la topp ndax ñi ngeeg seeni xel ndax nit booy topp nit dangay topp ku lay jëmale ci yàlla ku lay won yoonu baax ku la naan mbokkukat yàlla moo ne jàppante leen Moustapha Sy wallahi asi man dama rus ci yow man dama am gàcc ci yow xam nga dama am sama benn xarit boo xamante ne su ma ko mosaan wax seetaan nga Moustapha mënuma soxna bee man du mu ne ma man duma déglu kii yow kii du wax lu baax du dégle lu baax Moustapha Sy yow doo référence xam nga lan mooy référence mooy koo xamante ne day wax loo xamante ne nit ñi daf leen di jëriñ Moustapha Sy nit ñi dañuy dox rek mais dee nañu ba pare donc kon nit ñi dañu soxla koo xamante ne daf leen di delloo ci yàlla doomu adama yi dañu soxla koo xamante ne daf leen di wax xaalallaahu xaala rasulul sallallahu alayhi wa sallam àdduna bi bi ñu toll nii soxlawuñu nit ku mel ni yow axiru zaman lañu nekk mu jub jamono lañu nekk dañu soxla ku ñu delloo si ndax nit ñaa ngi déraper ndaw ñaa ngi découragé ay jeunes rek topp la nga war leen wax fan lañu war a teg seen tànk naka lañu war a def ba jub naka lañu war a def ba jubóog seen boroom ndax ndaw ñi ëllëg peuple bu baax rek bu ay ndawam baax rekk dëkk ba day baax nga war a yedd xale yi la topp ndeysaan man de maa ngi ñaanti borom bi subhaanahu wa yàlla na ma yàlla dimbali di ko ñaanal njabootu jullit ñëpp yàlla bu ñu topp ku mel ni yow ndax loolu mooy ak sankute Moustapha ku la topp sanku na koo xamante ne fitna rek ngay yee man Moustapha man dama jaaxle man ba ma man ba ma xàmmee ba tey musuma la gis nga wax lu baax man loolu moo ma jaaxal yow ban diine ngay pratiquer parce que su dee diine lislaam la c'est la paix moom la ñuy woote man Moustapha si man bugguma la sax xaw ma la te bugguma la xam heureusement sax ba nga xamante ne man fu ma la gis dama lay sappe heureusement man du mën a seetaan gis nga man ba léegi xaw ma li nga wax dama ko dégg rek dañ ma ko wax. parce que sama maam dafa doon wax naan dee leen ñaan yàlla di moytu di di di di di di dégg lu bon di yem ci wax ju bon man buggumaa dégg lu bon xastekat lu ko nit di doyee njiit loo xamante ne dangay xaste njiit loo xamante ne dangay wax lu bon man nag duma la wax lu bon parce que ñemewuma ko du question kan yow laa ragal de sama digganteeg yàlla moo tax duma la wax lu bon man li ma lay wax mooy nga dem faju ji ndax munoo nekk ci famille boo xamante ne kenn nawloowu la mustafaa si wax ma ku la nawloo mankaan yooyu la topp ay kilifa topp la ngay wax ñuy tàccu non c'est pas possible non Moustapha Sy wari nga Moustapha doo dara jël nga zéro jël nga ndaare pour sëriñ Mbay Mansour ni muy mel mel na ko ba pare si Malick baax na ba noppi te dara mënatu ko tax dara lu tax mu bon sëriñ Mbay Mansour yàlla yëkkati na ko ba pare te dootul wàcc ba ilaa yow mi diini sëriñ Mbay Mansour gën nga def ci xolu nit ñi bëgg ko ku baax ku nekk bëgg nga sëriñ Mbay mais yow nag bëggoo ku baax ndax baaxoo yow baaxoo santoo yàlla fekkewoo fu ñuy baaxee danga foog ne ndax sëriñ bay mën nga ko sëriñ Ba sëriñ Mbay Mansour sëriñ baa Babacar Si Mansour mi mën nga ko yàq doomu seexul xaw mi mii ah juum nga juum nga bu baax a baax a baax a baax yow fi ñu toll nii sa bopp nga yàq ndax ñëpp jéppi nañ la Moustapha Sy àddina jéppi na la ku baax nag laa la wax ku nekk rek jéppi na la yéem nañu xanaa ko bon ak yekkatu fitna kese moo naan dégg waaye ku baax ku nekk yow bana la Moustapha si yow doo dara tekkiwoo dara askan wi nga bokk jël nga ca ndaare ndaare nga jël Moustapha Sy jël nga ndaare billaahi jël nga ndaare ndax wax waxkatu lu bon ci diine lislaam nga ne yow njiit nga subhanallah laa hawla wala quwwata illa billahi alil azim Moustapha Sy maa ngi ñaan sama borom yal na la yàlla soppi yal nañu yàlla musal ci ku mel ni yow ndax yow xam nga loo doon xaar yow danga doon xaar yow ñëwoo woon pour gàmmu Moustapha Sy say pexe jubul yow danga doon ñëw pour taal Tiwaawan yow ñëwoo woon pour gàmmu yow danga nga ñëwoon pour taal si ko danga nga ñëwoon pour provoquer ay kenn wuyuwu la nga naan ñemewuma ger yow Moustapha si yow gàmmu daaw newa woon fii xaw ma daaw la xaw ma daaw jéeg newa woon yaa yore raw xaanu makki Sall danga koy folli ana Macky Macky ngi fi toog ba tey yàllaa ko fal te yàllaa ko fi jële Moustapha Sy yow newo fii dangaa gént yàlla Moustapha Sy ku la weddi sa bàyyi la weddi <laughs> sa bàyyi moo la weddi man sama xol bi dafa jeex ci yow man dama laa yërëm yow dangaa jara yërëm ku jara yërëm nga boo toogee di naan ay nii di def yow koo nuru sa pàppam radiyallahu taala anhu marqué na empreintam wax lu baax ba xëy dem sëñ Abdou Aziz Sy Al wax lu baax ba dem Pape Malick si wax lu baax ba dem bëggoon sëriñ mbay ba ñëpp xam ne bëgg na ko yow nga taxaw nag yéey yaay sa xol jeex sa xol tàng ndax kenn boolewu la ci dara kenn du la boole ci dara parce que yàqkat nga yàqkat dañuy bàyyi ba lépp sotti mu gis lépp nga naan ay dañoo kompaloo nangam ak nangam Moustapha Sy ca Abdou Diouf nga commencé woon commencé ci Marème Dieng Sala daanu si ci Alaaji abdu Aziz si Malick Dabaax radiyallahu taala anhu ñooñu ñëpp mënaloo leen dara nga daal na nag léegi xaaral ma ñëw ci sëriñ bay lu la sëriñ bay def ay xale bi noo tuddati Moustapha lu la sëriñ bay def Moustapha rafetalal sa dundu àddina jeex na ba pare te lii nga bàyyi wa fi way wu rafet de yow de sa waar li nga ci bay dara rafetu ci doo nitu dara man dama laa yërëm man personnellement man dama la yërëm te maa ngi ñaan nag borom bi subhanahu wa taala ñi nga xamante ne ñoor topp yal na yàlla indi leen seen xel seytaane bi leen muur muur seen xel yal na leen indi Moustapha demal nga faju ji demal nga faju ji àddina jeex na ba pare nga taxaw di wax waxi mankan yi yal na la yàlla soppi asalaamaaleykum